félicitations voilà ndeysaan ñoo ngi feeg ndaanaan di yakaru ndakaru lamba am ci moom yaakaar muy Serigne Ndiaye 2 tey mu participer ci drapeau chef de l'état def fi jaloore ju rëy ju kenn dootul fàtte Serigne Ndiaye ñoo ngi lay nuyu. de ah, maa ngi fay bu baax di leen siyaar bu baax sant yàlla bu baax di leen sant bi sant sama de waajur di sant samay mbokk bu baax a baax a baax entraîneur yi entraîneur yëpp. mais lan mooy secret Serigne Ndiaye ba mu jaaxal gars Wali liggéey rek di sant ñi may jàppale bu baax su ma Tapha Gueye su ma équipe ak Fass su may entraîné damay entraîné ku si mel ni Père Jo Père Maxi Bodi xam nga gaa Kante Kante Bojan damay entraîné xam nga di sant ñëpp daal waa Giri Fass ñëpp dirigeant yi ma sant ñëpp di gërëm ñëpp daal sant su may mbokk nag bu baax bu baax waaw. mais lan ngay wax sa fans yi nga xam ne dañ lay xaar ci arène bi. waaye ni waa Medina nag dama juddoo Yaraaf màggee waa Medina bu baax baax baax amul waa Medina wax dëgg yàlla. Ya ñaan yàlla am combat bu rëy waa mel naa yëpp jàpp si daal. jërëjëf jërëjëf Serigne